ñaari mbër yaa ngi xeex. ma ne daa ñaar ñëpp ngi xeex. waaye xeex bi baaxul nag. ndax xeex bi rek nekkul xeex bu baax. daw na roofoo ñoom ñaar. roofoo noonu ñoom ñaar. roofoo noonu ñoom ñaar ñaari mbir yi roofoo noonu. diggante jaay si. ñu bëre bëre suuf bala ñaa ngi doon. bala ñaa di dugal waaye jaay si di ko ci loxo moom sol na ko te mi ngi takk ndigal. ah li muy def wóor na. ma ngay takk ndigal li muy tànte bu sottee dana baax. seeram dafa ëpp corpulence. li muy tànte bu sottee dana baax ndax mi ngi dugal loxo yi ci biir fàq na ko jëm na koo fàq jëm na koo fàq dana kal xale ñaa ñu woon xale bàyyi naan leen bëri leen waaye daa mel ne Dia Sy moo gën a bëgg combat bi nag. boo seetloo bu dee côté jël action mooy entamé action yëpp. jëriñ fële nga ne taxaw di ko xaar rek. bës rek. sama càmmi na ay le 16 février. nee naa lu waay jàppoon dana ko ba. bu keroog gerte dama ni mbaxalu dundee. tarkalla macha allah ki xawle ris kooku ay burgee borom Dakar bës Fadel Fadelu Sénégal laa ko tuddee moo bu xawle foog Sénégal jug moo xawle nañ ko waaj xam naa ne yaa ngi waaj pare nga ak say njoñ. yaa ngi koy waajal waa Sénégal bës pare na ñu ngi nii fas yéene ànd ak moom le 16. lamb ji ragal naa kaw a am ci. xeex bi daa ëpp parce que boo xoolee sànq ba léegi jaasi jaasi pël moo koy sëkkatal mais ki taxawul ki la nga taxawul. dëgg ma lool ci ambiance. dina leen ah, lamb laa ko mën a tuddee sax nan laa ko xewu gér yaa ngi dóorante ñu ngay xeex. yaakaar naa fi jël ginnaaw waaw waaw. jaasi jaasi jaasi jaasi voilà xale bi dafa am jom nekk na jomay bëre ah, xale bi ndaanaan la jom laa gis ci moom fula laa gis ci moom ak fayda macha allah ay supporter am ngoog incha allah. père Kairé moo jox Kairé ak ñoom Diome Kairé. mais non ba sonuma. lan la xam nga ne gars yi coow la moo tax rek ma téye. dëgg la sonuma. waaw man ma bëri ale ba. di jël ay lag yu bëree bëri. ñii ñu daa mën a rente waa Mor la. yaa si tey sa supporter dañoo ñu wax boor. waaw waaw waaw. ñoo far. merci beaucoup. sa supporter dañu ñu wax boor tey ñu gis waa suba def mobilisation bu mag lu waral lool. waaw mais xam nga rek. gars yi moom damaa sonn. mbir bu ndaw laa. def naa sax ba maire bi dama doon jàppale si combat yi. duur si loxoom. sama mag bu nekk kaa moo gënee. un million may ma ko pour supporters yi mën a ñëw man nag dama leen gërëm rek yéen ñëpp aw ma seen fay quoi ak supporters yi. jaasi pël waaw dama demoon mbapat si àll ba ma jël lamb yi pël jàkk ma ak jaasi pël gaa ne ma ah kon boog ma ñu tuddee boobu sa boobu jaasi pël boog ma ne ah kon loolu garaaw waaw ba daa soon bëri final.

mu ngi noonu ci ay supporteram li daw na yaram li daw na yaram waa Soumbédioune dañoo mobiliser supporters yu bëri macha allah ñu ñëw tey accompagner ko ci bés bi mu may leen ndam combat bi yàgg na lool métti na lool mais xale bi dafa wane jom wane fulla wane fayda bëre na xeex na imposé na boppam dégg ngeen li mu wax nee na amul seen fay. looy wax ci waa Ngéwél ak la war a. nee naa la bés bi tey dafa ala ndaw me. ndeysaan jurukaay yu bëri fem laa fi fekk. dëgg la may lu ñu bëri fem bu ci biir lamb ji. nga waxoon ñoom ñaar ñoom dem ci géew bi ñëw ci li nga xamante ni moo di caatu Ngéwél ak Fils de Zallo Abdoulaye baa ngi wax ak ñaari xale yi doxalal ñu dem ñëw ci combat Fils de la woon ginnaaw. a ñun arbitre baa ngi wax ñoom nee naa la jigéen foo fekk jigéen rek am nañu am jom abi bu jigéen ay disé combat bi tay ñoo gis reporter bu jigéen abi bu jigéen chaque grand homme y a un grand dame dama la boo xoolee lii de suñu fier dara dafa ñuy neex ñu ànd ak xale ci biir géew bi arbi ci benn combat bi ndeysaan ñaari mbër bi ngewel ak nga xamante ne ndeysaan moo di Fils Zalo Fils Zalo ko ko ko ci kaw attention Fils Zalo dox na ci kaw caatu ngewel bi xew waaw waaw waaw waaw waaw Fista Sall Fista Sall dem nañ ca saako ya dem nañ ci saako ya. Fista Sall bàyyi naa taatu gawal. Fista Sall bàyyi naa taatu gawal waaye lii la lii xale bi góor la andi fit la andi. dañ ko jox arbitre combat bi daa gaaw ci saako ya lañ ko bëree. combat kenn du ko caax kenn du ko caax caaxee. grand combat wala jeexal si kaay ak kat. waaw boo leen bëree ba dem ci saako la sax da nga war a taxaw. elle a bien fait. elle a bien fait. dara suuf. leneen tey baax na ci ndox waaye ci nit la gën. ñaari mbër yaa ngi bëri bëri suuf. jàpp ko woon daa di bañ arbitre la combat bi parce que Fils de Zale jàpp na jël na ko caatu door rocceeku na Fils de Zale ngi entamé Fils de Zale ngi entamé nga def nag caatu door lu mu boole lu rëy Fils de Zale nank rek nank rek nank rek nank rek Fils de Zale daan na caatu Matar Diallo li nga doon wax rek moo ñëw te yow jëlal combat bi au sérieux defal nang maa ngi sant yàlla. dëgg la di sant sama ay xarit. dëgg la di sant samay waa écurie. dëgg la di leen wax ni man damaa bokk si làmb man sama ay mbokk nan ma jàppale. Mhm. moo dem tukki ñëw jël sama wàll si làmb ji. am na ñu ko open press ba. man la Fils de Zale Lo mu naqaree bëreel. moom ma Lo dama koo duma. maa ko gën a doon bandi. man waga mbayaar laa. mbayaar laa. doo ko mbayaar du xaadi. mbayaar du ji Fils de Zale fi ma toll. fi ma tolloo toll ku xam làmb xam ni. bu doon damay bàyyi rek damay daan. mais làmb bi nu may génn barki Seydina Mohamed damaa jooy. man sa tànk bi nga koy jox moo ma jaaxal chaque fois bu dawee sa tànk nga bàyyi ko moom loolu. sama waa Ikiri. ay. yéen kii maa ngi koy gërëm. kërëm Bambilor fa laa pere lamb ji ba tey. maa ngi koy